dikkati na ñetti ndaw di doomu réewum Sénégal day daal na ñuy ñàkk seen bakkan ci manifeste yoo xam ne am na ci réew mi manifeste yoo xam ni nag dàquk élection présidentielle moo ko daal di jur yoo yooye ñett ci ay doomu Sénégal di ay ndaw ñu faat leen yéeni kaayub di média bi naan man alfa Yoro Tunkara étudiant la ca UGB Modou Gueye faat nañ ko ca Colobane Landing Jeeju ñu faat ko ca Sigicoor moom magu Modou Gueye moomee nee na ki nga xam ne moo faat rakam xàmmee na ko te dina jël ab plainte ni ko ko dajji laa la wax le mandat ma déet neel kay dàqub élection jur na Sénégal daal di suul ñett ci ay doomam libération nan kon faat gaa ngi yokku ci réewum Sénégal gannaaw yi manifesté moom Modou Gueye gannaaw bi ñu ko faatee ci anam wu ñaaw mag ja naan man tuccumaa des ci àdduna ndax suñuy waajur dëddu nañu waa SAES di gréew gannaaw étudiant ba nga xam ne faat nañu ko ambassadeur bu États-Unis naan élection rek calendrier bi buñ ko tegaatul na mu nekke woon président Macky Sall dañuy wéy di ko ko wax libération naan maan wax nan wal fu ñëwaat na moom Cheikh Niass président Macky Sall dalal ko ca palais ñu signaluk wal fajri moom PDG bu wal fi mi nga xam ne da doon menacé déjiti président Macky Sall ma nga naan gannaaw ay jàmm le point ak ci naan maan moo ne day ca manifesté yi gisu leen ci kenn koo xam ne leader bu opposition la ku ci nekk nag dafa porté malade ne ñëwuma te Souleymane Jules Diop xamle woon na ko naan moytu leen opposition bi nga xam ne am na ci ñoo xam ne daal dañuy wax ci kaw wax ci suuf bugaan gee dañu ci yéene kaay bi naan keccet ma ca critique yéene kaay naan ñay dal ca kawam sax bugaan dalaat na seen kaw yoor yoor naan maan génn naay dëggam moom jiital gëm sa bopp lii ko di jee man jagleel ko nag ña nga xam ne ñoo ko bëgg a dendaleeg président Macky Sall moom Bougane Gueye Dany ci turbine yéene kaay naan attention am na ñoo xam ne ay bukki la ñu sàngoo de béy ñu ngi ci opposition bi di opposé opposé lu te duñu ay opposant dox soxlas président Macky Sall moo leen tax a jóg xaajale opposition bi moo leen tax a am na ci opposant yoo xam ne tey jii booy def bilan président Macky Sall mënoo leen ci génnee ndax ñoo président Macky Sall petit ba grand ba muy yootu nguur gi ñoog Sall la ba nguur gi bëgg a jeex ñuy opposé opposé lu ñooñu nag duñu ay opposant man la président Macky Sall moo leen sànni ci opposition bi ñuy dégloo ko yëddu su jotee ñu raam ndànk dem yebbil ko Sall géyee nga naan leen attention noonu opposition bi ñi ngi ci biir opposition bi ña ngeen di talal loxo di leen dugal seen biir xam leen ko ña nga ñuy xàjjalee ko féewale xam nga fii opposition bi buñ bëggee sànni kii xeer jor kële jaas yi jam kële paaka xoj kële kan mooy desati bu ñu booloowul man la faatu fa yàllaahu la ñuy def yàgg naa ko wax benn ennemi la ñu am ñun bi mooy président Macky Sall mi nga fi déjjatee bañ a nangu lii nga xam ne teg nañu ko ndax dax nga xam ne sàll teg nañu ko dialogue dàqu ko leneen dàqu ko na lu dul jàmmaarloo ak moom rek ndax fi mu ne dina dugal suñu réew ci guuta goo xam ne maar day taali ay xeex waaye tam wàllu koom dees na ko yëg bu baax baax des na tuuti ma mani la njëkk dina yokku ba maar day taali kon xeex bi xeex bi sàll moom président Macky Sall moomee las yéene kaay naan man moonte ma nga bëgg jàmm de ma ngay xool nees libéré Ousmane Sonko ak ñamu àndal nu mu a gaawee rax ci dolli ab réewum Sénégal ngir dalal waa société civile ak jege ñaaleeg Sall guddi gu jot ñu dem pale ngir fas yéene wax ak moom le quotidien le quotidien naan en tout cas moom président Macky Sall àllarba ji dina dugal ab projet de loi ca conseil des ministres ngir ñu waxtaane ko amnistie daal di am ci réew mi ñu fas yéene nag ñaabar ñaabari jëm ca dialogue vox populi naan président Macky Sall a leen di xupp ma nga naan leen yéen politique yi bu ngeen toogul ci table daal di ba jàmm am am na ñoo xam ne mani la yéen a leen di xeeb te ci acteurs yi la ñu bokk duñuy politicien waaye mën na jot ci nguur gi à tout man Sall day sama yéene mooy bàyyi Sénégal goo xam ne du amuk na du mag dictateur waaye du ma nangu it ab réew moo xam ni dañ koy salfaañe mën nañoo manifester waaye def ko ci jàmm ak dal vox populi naan man attention moom président Macky Sall ma ngay xupp politiciens yi dégg leen daaj te xam lees waxul ay jege ñaale moom président Macky Sall mel ni ku naan moo yey moom Doudou Ka ministre bu économie ak bu plan ak coopération naan président Macky Sall nii mu jëfee nii la mën a jëfee ndax Sall nag moo nguufaan kaw institution yi saa bu institution yi naree am jafe koy saafara ku dul président Macky Sall ñoom institution yooyu yee ñoo ami jafe-jafe duudu ne dooree ko ca parrainage bi nga xam ne opposition baa ngi ca doon kaas ba keroog bu ñu tabbee ña nga xam ne ñoo war a jàll ci élection bi koo xam ne sànni na nationalité am ñu xañ ko élection dugal koo xam ne am na double nationalité ba dugal koo xam ne maga kaso jamono ji duudu ka naan lii bu ñu ko bàyyee woon mu jàll daanu am ay njiit yoo xam ne ëllëg Sénégal dina ko bëgg joyanti mu tëñu tey jii nag responsabilité ku nekk moo nekk ci dogalu président Macky Sall bii ku ci nekk nag war a xeex xeex boo xam ne institution yi réewum Sénégal nga koy xeexal ngir ñu nu jodd taxaw ndax ci turuk honneur waaye tam ci turuk démocratie bu réewum Sénégal état de droit it ci la président Macky Sall jëlee ay kàddoom mënoon naa noppi Sall defu ko ay responsabilité am la jël wax ci lii saafara gi nag duudu kanaan du lenn lu dul waxtaan rek waxtaanee réew mi soobu ci dialogue goo xam ne ku nekk dana ca gis boppam yéen kaay bi naan man màgget seeni i daal nay wax daal di nguufaan ci kaw président Macky Sall xamal ko ne dogal bi ànd na ceeg moom moom maire bu Malicounda daal di xamle ni opposition bi nag képp kuy politique ci réewum Sénégal la war moom moo di woote jàmm waaye tam dal di woote waxtaan ci table waxtaan goo xam ne moo mën a génne réewum Sénégal ci nguufaan gi nga xam ne soobu na ci màgget naan bu nu jugee ca parrainage dal ci wàllub ger ak itam ñoo xam ne dañoo am double nationalité mais anam wi nees ci tëggee ay élection tebul ko tëggoo ni dina gàkkal démocratie réewum Sénégal ak suñu institution ba faaw président Macky Sall nag mënul woon def lu dul jëli responsabilité am ci mbir mi taamu démocratie boo xam ne dina dalal ba ñu jëm ci ay élection yoo ne dina libre waaye tam dina leer ba kenn du ci mën a andi jiixi jaaxa gannaaw bi nga xam ne wote nañ ba noppi Mamadou Gueye maire bu jidda caaroy kaw ne gerde la ñu yëkkati teg ci kaw ndoddu conseil constitutionnel te accusation yu rëy yii dee su ko demee ay élection du bëgg-bëgg ak président Macky Sall waaye nag faaw mu jëfee nii ndax ëllëgu Sénégal lay bañ a tayle moom jiital impôt domaine naan président Macky Sall bu jëfewul woon nii démocratie réewum Sénégal daal di suux boo tegee fee waxu militant xam ne dëgg-dëgg jëf ji yoon la Cheikh Issa Sall naan président Macky Sall ña ngi la gungee ci tànkuk dialogue gi nga xam ne woote nga ko léefa yéene kaay naan kon en tout cas Sall ma mel ni ku dal cib xal gaa koy dalee fu ne ay professeur université juróom ci ay agrégé de droit ñi ngi dal ci moom ak sept sages yi naan leen fi mu ne yéen sept sages yi ëllëgu Sénégal mi ngi ci seen loxo lii ñu leen tegal dàq leen ko ndax yoon ci boppam may na leen ngeen dàq ko ndax jaarul yoon Serigne Diop Abdel El Kader Boy Babacar Gueye Alioune Badara Fall ak Alioune Sall ña ngay démonter benn par benn la tax na conseil constitutionnel warta nangu dàqub élection yi Sud Quotidien daal di may xamal ne en tout moom réew maa ngi di la fipp goo xam ne day wane ni nguuru président Macky Sall ma ngay jeex te président Macky Sall mii kat moo ko def ndax moo xëy def la ko saf askan wi génn def la leen saf bi le journal président Macky Sall ma leen di artu ma ngay joxañ ñoom politiciens yi seen gën naan leen bu ngeen arrêté wul gaay yi lu ne mën naa am ci réew mi te man Sall dinaa dem bàyyi réew mi ci loxo yoo xam ne man na bañ a doon loxol politicien jomaay président ne pression bi duñ ko dakkal Karim Fofana ay terroriste ñoo am ci ci réew mi laataa loolu ma la ñetti bakkan rot na ci réewum Sénégal l'enquête quotidien naan fi ne waxtaanu tëx moo am ci réewum Sénégal président Macky Sall ak i gaayam ña ngay woote dialogue askan waa ngi manifester Alioune Tine ma ngay woote jàmm ak dal l'observateur naan Ousmane Sonko mi soxla bokk ci élection te ñu woo ko dialogue benn loxo ba banku na bañ merek jege ñaaleem ak kalaate parteem geneen ga it mën a talalu ndax bokk ci élection deux minutes pour lire l'essentiel naan man en tout cas dàq nañ présidentiel bi ñetti téeméer ñaar fukk ak juróom ci doomu aadama ñu daal di leen ci teg loxo bakkan daal di rot ci réewum Sénégal mu nekk ci guddi goo xam ne bër setagul turbine yéen a kaay naan maan waxtu woowu ci téeméer ak ñeent fukk ak ñeent édition bu wooteeg Seydina Limaamu Laay almaxdi gi yoof ma ngay woote dal naan ña nekk pale buggu leen génn ci nguur goo xam ne bakkan yu bëri da cay rot ña nga xam ne jotaguñu nguur buggu leen jaar ci ay néew ngir dugg ca pale ba kon jàmm moonu jig ñun réewum Sénégal nañ ko woote moom Mamadou Lamine Laay porte parole bu laayee ni naan lay indi fitna nan fexe ba du indi fitna ci réew mi ña nga xam ne ñoo koy fajee réew mi ndax nag waxtaan moo mën a indi jàmm te jàmm ci la Sénégal mën a nekkee ci dal Cheikh Thiam ci l'enquête quotidien naan dal gi war a am ci réew mi ñoom laayeen ni day ñu ngi ci indi saafara ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm Seneinfo International